coalition Diomaye président man maa ñëwaat dugal photo boobu Macky Sall ay magistrat wër ko di ñëw ci intervention Pape Alé Niang donc texte bi may partagé ak yenn maa ngi ko jëlee ci page Facebook Pape Alé Niang mu wax ne Macky Sall réunir le conseil supérieur de la magistrature def fa benn maa tey jël Abdoulaye Ndiaye président ki nga xam ne moo jiite woon chambre administrative bu cour suprême nommé ko premier président euh, de la haute juridiction Abdoulaye Ndiaye remplacé foofu ci post bi Siré Ali ba nga xam ne dañu wax ne dafay retraité te pourtant ba mu war a retraité yàgg na mais dafa bàyyi ba ci diggante bi mu def yëf liggéeyu yu salte yooyu Macky signé na ay décret yu nga xamante ni dafa bëgg passation de service yi entre ñaari président yi Siré Ali Ba ak Abdoulaye njaay ñu amal ko talaata pour que président bu bees bi su ñëwee day fekk daf leen fay fekk daf leen fay fekk nga xam ne du ci mën dara daf leen daf koy mettre devant le fait accompli loolu nekk benn coup de maanaam benn jaay doole benn maa tay bu nga xamante ni Macky Sall moo koy def pour jël ay nitam ñoo xam ne ger na leen ba lépp lum leen sant ñu def ko même bu fi nekkatul sax bu leen waxee defal leen ma nangam ñu def ko placé leen ci poste yu stratégique yooyu. Abdoulaye Ndiaye mu mu nommé nag premier président cour suprême loolu dafa anticonstitutionnel maanaam loolu yoon nangu ko si illégal si illegal dafay viole esprit wu conseil parce que ñu ngi ci période bu nga xamante ni président de république affaire courante yi dossiers yi nga xam ne mënta ñàkk kese la war a gérer mais mu nekk fi di nommer di teg ay deal di teg ay pion yoo xamante ni pour gàllankoor nguur gi di ñëw la waaw c'est une inélégance républicaine inouïe maanaam euh, lekkoo ci cere ji bëgg cee xëpp suuf noonu rek laa ko mën a mën a mën a waxee ci wolof yow yaa ngi dem waaye ki lay sax dangaa bëgg mu échouer yaa ngi dem waaye jàmm sax yéene woo ko ki lay donc naa fekk dëgg mooy Macky Sall Sonko waxoon na ko nee na nit gënul bon Macky Sall ci kaw suuf loolu dëgg la c'est une vérité waaw soo ko gisee mu mu ne mu ne pat te pat gi yëpp caay-caay ko lal ak bon ak soxor très sincèrement affaire yi mi yi ñu doxal nii diggante bi jomaay faloog léegi yu salté salté la yoo xam ne mën naa indi jafe-jafe ci nguur gu bees parce que nomination yi muy def kenn moo am compétence am kenn moo am prérogative mooy le président Bassirou Diomaye jaaxaar fay décision yi nag jur na coow lu rëy ci biir réew mi ah jur na coow lu rëy xanaa dañu amul presse bu baax rek moo tax gënuñ cee leeral indi ci ay information ba yëgal nit ñi lu garaaw yu garaaw yi nga xam ne Macky mu ngi koy def ci suuf waaw tey fi mu nekk nii jamono ji magistrat yi dañoo mer a mer a mer ba nga bëgg ba nga xamante ni mooy loolu parce que dañu jàpp ne lii nii ñu def manque de respect la maanaam dañu dañ leen respecté wul sax waaye tamit ñoom ñi ngi am yaakaar que ne nguur gu bees gi dana bloqué yii yëpp parce que affaire de caaxaan la affaire de bandi la moo tax Macky Sall mii affaire yi mu def Sénégal yëfu yëfu bandi yëfu yëfu naafeq yi mu def ci réew mi il faut nga bandi comme moom il faut nga sadi comme moom pour mën ko fee jëlee il faut ñu am régime bu dëgër boo xamante ni yoonam nekku ci alhamdulilah ba Ousmane Sonko mu ngi fi ci wetu Bassirou Diomaye fay man gëm naa ne seen yi ñu teg yëpp Sonko dina ko teggi sànni ko ca xaj c'est très très grave ce qui se passe dans ce pays là jël ay haut conseil euh, des collectivités territoriales di nommer ay nit conseil économique social environnemental di nommer ay nit haut conseil du dialogue social di nommer ay nit di yokk ay salaire ah di jaxase armée bi ak gendarmerie bi di di recruter ay jàngalekat ñi leen di jox OS pour war leen fay loolu yëpp pour indil ay jafe-jafe xaalis nguur gi indil ay jafe-jafe ci wàllum défense indi ay jafe-jafe ci wàllu sécurité indi jafe-jafe ci wàllu administration mais man am naa yaakaar ci Ousmane Sonko am naa yaakaar ci Bassirou Diomaye fay am naa yaakaar ci gouvernement bu bees bi ñu war a teg pour que yii yëpp ñu teggi ko sànni ko ci àll ba teg Sénégal ci yoonu njub ak dëgg no c'est grave ce qui se passe au Sénégal sous Macky Sall c'est catastrophique